ngeen def mbokk internet di ñëw Amadou Ba ca Mbour nag dana nekk loo xam ne jaar-jaar bu waa Mbour dutul fàtte la ndax nag xeexew bu métti la jur ci diggante ñi nga xam ne ñoo di militant yu APR ba jur ci nag ñeenti cay doomu aadama yoo xam ne am nañ ci ay gaamu gaañu fu bañ a rawale leen ci lalu l'hôpital Amadou Ba premier ministre waaye tamit ci geneen wàll candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle yu 2024 moom nag moo nekkoon ca mbuur di fa amal benn visite économique ci li nga xam ne nag mooy la petite côte waaye nag rencontre boobe rek mënees naa wax ne dafa mujj jur ay jooyante wala sax ay xeexoo bu métti niki àllarba jile nag ci diggante ñi nga xam ne ñoo di militant yu Cheikh Issa Sall ak nag ñooñu kile di Sira Ndiaye accueil bu Amadou Ba foofu ci Mbour nag moom jàllu rek na nga xam ne noonu la ñu ko bëggee woon ndax candidat bu coalition benn Bokk Yaakaar bi nga xam ne nag jamono jili mu ngi amal ay visite économique waaye nag en même temps di rassembler nag ses troupes ngir nag préparer li nga xam ne mooy présidentielle yu 2024 moom nag gis na rek ñay militant yu ñaar ci cadre yu gouvernement bu Macky Sall daal di amal ay jàppante yu metti foofu ci Mbuur buñu ñu sukkandikoo ci nag xibaar yi nga xam ne mbokk yu Dakaractu ñoo ko daal di reporté ñoom ñooñi Cheikh Issa Sall nag nekk directeur général de la caisse de dépôt ak consignation euh, par ailleurs tamit nekk maire bu ville bi nga xam ne moo di Mbuur ñoom ñoo doon jàppante ak ñooñ yu Siré Ndiaye ñu ne nag ab affrontement boo xam ni mujj na nag am ay blessé ñu ña ci sax ay blessé ci côté ñi nga xam ne moo di bokk ci ñi nga xam ne ñoo di moo di vice présidente bu assemblée nationale ak ancienne présidente bu commission santé ak affaires sociales ñooñam tamit am ci ay blessé quatre militants nag ñoom daal nañ leen transporté sax ca fële nga xam ne moo di ca la l'hôpital des xaarandi fan la wanante du mujjee ki gëtam waaye nag jàllub Amadou Ba foofee ci diwaanu Mbuur dootul nekk benn yoon lu ñuy fàtte ndax jëye ja nga xam ne jur na ko fa jàppante bu métti métti ci ay militant yu ki nga xam ne nag moo di Siré Ndiaye ak Cheikh Issa Sall ba waral sax am ñu ci am ay gaañu gaañu yu metti ba ñeent ci ñoom ñu daal di leen rawalee foofu nga xam ne moo di ca kërub l'hôpital ngeen jëf mbokk internet yi li mu doon xibaar yi ci bile vidéo yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu ci yàlla àndee la talo li wareen di like di abonné ci seen chaîne ku dee ci page bi te abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné activé sa cloche soo ko defee lu nu dugal ci vidéo nga bokk ci ñi koy njëkk a jot cant ak ngërëm ñeen na leen 14 Régions du Sénégal foo leen mënta